waaye xaj baab léegi li ma def noo ko ma ni yow lan laa def ah yow li nga def xamoo parce na yab nga ma nag lan laa def démb waaye yow xadi baaba yow yow li nga ma wax démb ma toog di xaar xadi baaba mujj gi damaa de nga defe ne loolu jaar na wóor ba ngoon aw ma lu ma lekk xadi baaba démb damay dugg ci waañ bi nga ne ma carrément dugg ci waañ bi bàjjan mooy dugg ci waañ bi ndax bi nom jox na ko 10000 ne ko na ko dolli ci ndog bi daf fiy ndogoo nga ne ma nga yëkkati sa 10000 jox ko may la kon lu ma koy jox nga ne ma bul ko jox dara bàjjan dina togg xadi ba ma toog toog toog gis ku ci nekk fay sa làmp dugg sa biir nekk fonde laa leer euh, réerée dem xadi baaba nga defe ne loolu jaadu na tooñ nga ma ne tooñ nga ma ba ci kanamu yàlla la tooñ nga ma xam nga su am temps boo yónnee fonde sax ah, di naan waaye man dem xol bu tàng laa fanaan ba bër set yow naan nga fonde sax nag au moins dugal dara sa biir man sama biir bi dara ci dugg ba pare jël samay ñaari junni yóbbu man li yee ma naqari waaye léegi lu tax toogul gis nga bàjjal wër na yàlla pare naa ci moom kër gi dootul waxati ma wax wala bu ñu mënatul a séq ñàkk bañ a séq wax gi ba ñàkk ni ko bañ a séq sama dërëm dootul demati ci moom ah. bàjjan bi noonu ba na koo jox xaalis mu ñëw jooytu ma wax daan ne ma daa bëgg a togg ma daan ne ko léegi kon bu laaj kenn participation bàyyil man dinaa la jox 10 000 francs nga dem marché waaw soo ñëwee ma jàppale la mu ne ma jarul nga may jàppale bàjjan dem ànd ak bu daax marché de dem fekk fa ñuy carte xaalis comme daa bëgg xaalis doyluwul mu dem carte xaalis boobu ma la bàjjen loxo yi kese la fi indi. waaye gaw ma lool gaw ma toog di xaar reer di xaar reer di xaar reer. naan ak café daan ne moom laay naan xaar bàjjen xëy na daa comme taalul ah daa dem wuti tracteur xëy na comme léegi dafa xew. bu ma gisee bàjjen ak lekk. yow laa gis lu ko dal ak weeru koor bi carte xaalis carte xaalis rek dafa araam waxtuma na weeru koor bi mu yàlla ak muy mel ne tungu ne noonu dem naan day carte xaalis waa kii rey ñu ba dee. man bàjjen pare naa ci moom pare naa ci moom. ah ah ah na jóg na jóg jot na xam nga ne xadi baaba lan la lii mënatuma cee woy lii mënatuma cee woy lenn nag la ñuy def kër gi foog ñu réinitialiser waat ko réinitialiser ko mooy nga toog ma toog Ndeye toog. Ndeye Ndiaye ma mais Ndeye Ndiaye foog mu il faut que mu toog maag yow ak Ndeye Ndiaye toog. sën a toog ndax sën a nga fële. ak bàjjen ñoo yem jikko. déedéet bul waxati loolu déglu man day bëgg na biiram te xam na lu mu bëgg a def ci biiram léegi nañ lijjanti lii waxtaan suñu biir xool nu ñu def wa ilaa nag man ma ber sama cin ndax waaye xadi baab dinaa woor ba ngoon naa ko dëgg yàlla di fan fande du ma lekk dem démb fonde bii ma lekk nii dafa metti boo bëggee ber waat dina metti de ah kon nañ li jënti bi de nañ li jënti bi ndax kaa bi buñ ko li jëntiwul fi toll nii day metti ndax mënu ma dëkke yow tamit yow imaginer loolu ma xëyaat woor nga defe ne loolu jaadu na naqar man li ma nekk li ma nekk dafa doy sëkk sama bopp bi ci nekk yëpp dafa doy awaa nga nee nekk ci ay problème waa léegi man nga bëgg man ma boole loolu yëpp àndandoo xiif encore woor ba ngoon ndogu lekk tàndal man naan café bëgg a fande xadi loolu duma ko man loolu hmm. duma ko man chaque jour ma yey la sama kaw nañu waxante dëgg jot na aw mu fi amee woon problème dama ne la demal nga xool awa ba amee asaka goo joxe nga jox ko awa danga ne ma mënuma ko carrément doom si nit la dagg de xam nga ne bu amee problème di nga ko yëg te yaa ngi nii liggéeyoo goroo yettoo defoo dara may wax nag ngay wax naan da ngay ber sa njër boo ko beree looy toggee yow boo lekkee tey bu subaa doo lekk assu man dama laa dama lay joxaat rek conseiller boo déggee baax na soo déggul baax na sama boutique baaba nee na yàmbalang mm. soo bëggee nga ñëw ma jox la ay bagage nga dem jaay boo jaayee ba pare ñëw versé ma. xadi baaba xadi baaba man bu dee boutique kese am naa boutique gis nga Aïcha Diagne sama xarit la sama doomu ndey la lépp lu ma sol suba ba ngoon moo ma ko solal Aïcha Diagne ci boppam lépp lu ma soxla daf ma koy jox yow da ngaa foog ne damaa dof nii toog di xoole man maa ngi placé de maa ngi jaay ci suuf de am na yu may def ci suuf de danga maa gis nii rek ma toog nga yaakaar ne kon yow man xaas yi may nattee fan laa ko jëlee ba joxuma ko yenn saa yi ma am lu ma jëndantul fan laa koy jëlee léegi nag ngi dem ci Aïssa Diagne mu lay jox bagage te Aïssa sa maa ngi moom ñoo boo commencé bi man su ma amulee voile moom moo may jox moom ak Ndey Jóob yaa ngi dégg léegi nag comme nag yaa ngi dem ci ay sa Diagne mu lay jox ay ngay jaay asu def ci fulla ak fayda. waaw xabaar mi moom yow xabaar kër de ah ndax xam naa la naxa naxa dem leble ñu war laa fay nga nekk fa naan koo yërëm baal naa ko. waaye ma jàppee nag fulla la. jaay nag fii ak amoo ci fulla ba ñaan sa jaay des na. yow man maa ngi fayeeku. moom kay gaana ma la laajee ba beneen weer damay bàyyi ba beneen weer moom. waaye du ma fi nekk ragal nga fayee ko ba pare daal di koy dundee wala nga jox ko ba mu dundee ko. ba lii laa lay digal. <laughs> yow wuy ma ba baa xam nga ne dañoo mere Iran mi fi ñëw. waaw ba neen dañoo complot nee question yi ñu laaj Iran yëpp ñun ñoo ko waxtaanee suñu biir complot ko teg ko dil ba nag dafa ceeñ fi mu toll ni mer man daal baa ngi noonu. man ba mu may nag man ma sama yoon nekku ci ñëw na sama place di ma leb piis xam nga la ma yoroon jeex na. ñëw na di mal lépp piis damaa xam fu mu ko jëmee. bam day lépp piis boobu Iran ñëwagul de. boobu Iran ñëwagul de. <laughs> boobu Iran ñëwagul de lii bi fi Iran ñëwee ñu waxtaanee ko la démb. léegi nag xam nga lan la. <laughs> xam nag Iran daa ñëw ba ñu waxtaanee ko ba pare mu yaakaar dañ koo kompaloo affaire am la ba jikkoom rek lañ ko tegal. ñu jikkoom nag yoruñu lenn loo xamante ne dañoo koo sosal. lu mu def moo ko. waaye xadi baaba nañ ñëwaat ci lekk gi ci ndogu gi dimbali ma tey nañu togg munuñu ko ma ber sama tin sama marmit laay wut naa leen lu leer dem ba ca marché wut ca laat mu jox ma ay quelques marmite ma teg ko nii ci sama ruq man dong toog siini jox ma légume ma togg mënatuma ko wuy ma na ngay ni koy wax teeti waa ay beru xaar yow moom dangaa baadoo la yow yow moom warkat nga yow yow ki kii wala gàttaayam bi noonu la nekkee warkat sim non damay dem pa pouvoir question réponse lii ma lay wax nga tontuma ci benn par benn boo ci jàddee baat beneen sa bëñ dina wat voilà sama xaalis fan nga ko dugal man xam nga lan dama lay jël yóbbu ci biir kër gi waxee ko foofu de li tax may di la fi xam naa ko expliquer ma sama xaalis fan nga ko def damaa dem marché ànd ak kii nu bu daa bu daa laa àndal léegi bu ñu demee bu daa yor pañe bi man ma yor saag bi ma yor saag bi léegi kii waaw après bu daa daa daa ne ma bàjjan xaaral ma ma ma dem xoolal carottes yee ñu jaay fe ndax baax na man quoi ma taxaw ci rond-point bi noonu léegi bi bu daa taxawee ci rond-point waaw léegi xaaral xaaral xam nga gën a benn ci des léegi ma daan ko ma daan ne ko yow bu daa kaay. bi ma naan ko bu daa kaay après am na ku ba jékki-jékki benn jakarta daal di këf dupp ma bi sama mbagg mi di métti léegi man bi ma xel métti damaa defoon bàcc jakarta la moom laa ko ma dañ ma dañ après bu daa bu daa daal di looloo tax toggooree ah nga humilier ma ci kër gi binom nee na bu kenn defar ndogu sa kër moom mooy defar lépp. nga ñëw annoncé ko ba dëkkandoo yi sax dégg nañ ko ah nga ñëw ñu agressé la au lieu nga jël sa téléphone woo ma ne ma xaas ba dem na ma jëm laa di jëm ci jox la nga demaat nga dem ñëw toog ne pat yàq sama der. boobu damaa damaa rusoon ndax xaas bi danga joxoon trente mille mu rus laa wax loolu xaas bi yëpp réer na. léegi ngeen fan fande lekku leen n'est-ce pas. voilà léegi bu loolu pour lan ponkal mu toll ni yow booy jakartaay ceeli lañ. nga téye sa saak di langar-langar ci kaw ci kanamu tali bi bañ jël sa saak bi yóbbu ko ah buñ ci damoon sa mbagg bi yaa ngi nii nga ne sa mbagg day metti dañ laa gaañ fan la fan la ban côté la fii la eh marsa ah, nga woo ma annoncé ma ko bu daan nan laay ànd ak moom moom eh jarul jooy eh, mille francs rek la def nga plainte contre ok léegi demee boo xëyee da ngay ñëw brigade ba hmm? nga def plainte contre x buñ ci jàppee benn jakartaal dañ ko indi am nga ci loo ci xàmmee am nga koo ci xàmmee wala xàmmee woo. déedéet jaru ko ndax man tuuti xel ma la aw nu loolu waaye nit ku ndaw la hmm. ma man mënuma laa dal ndax man mënuma jox xaalis ba pare am yaakaar. loolu garaawul waa kër gi am yaakaar kenn lekkul kenn naanu ñu ne lu tax kenn lekkul. léegi man li ma la bëgg a laaj mooy. bu daala mooy réaction après après agression bi. dafa daw moom dafa daw moom dafa daw bàyyi ma foofu man sama ëpp fit man maa ngi doon dàq waay bi ma bu jaar yoon romp. sa mbagg mi yëpp nga leen doon dàq. waaw waaw ndax bu tàngee du du du metti bu mu sedd la commencé di metti man may dàq waay ji après xale yu góor dem di ma ko dàqale léegi eh Massa eh ayca eh, ayca loxo bi jooy bu ko jooyee eh bàyyil bàyyil Massa eh, bàyyil arrêté jooy day yëngu day yëngal sa kii eh ba wuy ma arrêté jooy du maa moom xaalis bi. baal naa la jugal dem hôpital jugal jugal ñu dem hôpital fii xoolal ma ne nga jug nga ñëw ñu dem infirmerie nga xool kay biram fi fii moo dagg jugal nga ñëw lay dee waay taawal bilaam ma da ngay def bilaam waaye itam daanu lu yàlla na nga yëg demal nga yëg fee yëgal waay boo soogee doo def bi la normal normal sucré chocolat d'amour noix sœur d'ébène femme nuit femme noire je t'adore la femme noire mérite-t-elle l'émancipation et la parité afin de chanter cette femme dont Senghor ah eh proverbe bi de kenn yeggalewu ko waaye li ngay def ni baaxul nag yow man xam nga man damaa woor wóoroo rek jël sa vitale ak man vitale ak ni ma ci mel ki ne vitale ne woon nañ chaque jour ak yi nii naan fi ñu toll nii yaa ngi si yaa ngi yàq yaa ngi ràq mënuñ bi te li ma ci gën a métti xoolal waaye li ngay def nag rafetul na ki ne man damaa woor war a toog ci diggu bëccëg gi di naan vitale benn ba pare ngay naan bu sedd. chéri chéri yow loo xam da nga mer morceau de sucre. arrêté li ngay def li mooy lan. lan la lu xew. xew ci la. lu xew. wuy ma da ngaa am sa jukko jooju nag sa jukko séeréer da nga koy génne wuy ma fii maa fi pël bi. tukkuleer arrêté racine maay sa buur dama bëgg nag tey. nga defal ma benn sauce aux côtelettes bu saf sap côtelette moom xam nga man dama préférence mooy xar xar mu ndaw nag nga may wutal boo demee ñu jaay la ci côtelette yu bien kii ne xoolal du ko tere lekk na ay 23 heures yooyu laa koy laal yow mu xaw koo tuuti muusal rek xam nga xale day gaaw a kii xoolal ba pare nga xeeñalal ma ko lakk defal ma benn petite sauce bu mu am frite bu mu am dara des petites crudités boole ko benn sauce jaune. man ngay taawee ko noonu di def sa liste dangaa nam pët eh, xaw ma añoo xaw ma ay côtelette jox nañ la xaalis ba nga récupérer ko fii njaag nangul nga def sa bopp demal ka ko jox toggal la dama xam ne yow humiliation bi ma teg fii pour lan la fekkee dangaa bëgg a waat sa jabar looy daw responsabilité xam nga sa papa moom moom ku moom moom ku ko jox xaalis rek yaa ko moom moom moom xaalis lay jaamu mais bu jël sa papa di ko jiital naan sama papa li sama papa la yow yaa bëgg a récupérer sa jabar lan nga fi nekk di jouer ay faux jeu tu ne me permets la sama papa yoonam nekku ci génne ko yow may ma sama jaam dama lay wax arrêté yow man lu la neex wax pour tuddaat sama papa Ah, ñu lay li ngay def ni c'est de la jalousie mal placée. mënoo bàyyi loolu bu ñu waxee nga ni c'est de la jalousie man li ma la wax dama ko def. parce que tu es xaalis bi ngay jël loo koy doyee. xaalis bi mi fi ma ko def. mais lan nga koy jëlee lan nga koy jëlee. bu loo doyee gi. jox ma ko qu'est-ce que tu veux. ma ne ko bugguma demal sa. teraanga encore ah, loolu teraanga la. yow kay dañ laa jox premier cadeau pour takkaat. man ak yow dañuy sëy yàlla sëy xamuñu fu mu jóg kenn ñaanu ko yàlla tey bu ñu tàgg woon aussi jàmm ak salaam rek lañuy sekk bu xaalis nga war a jël dala koo jox delloowaat ko ko nag da nga xam fan la ko jëlee kii day liggéey. dans tous les cas xaalis bi heure bu mu ko soxlaa dinaa ko ko jox parce que fa mu nekk jóge wu fa. Ah, kon bi leer na. heure bu ko soxlaa di nga ko ko jox. waaw noo koy joxe ak foog joxe. Ah, bu ko soxlaa ma delloo ko xaalisam. ah kon da lay woon ne delloo ma xaalis nga cokk cokk. ça n'a rien à voir avec ça. kii tu comprends à travers yow kay premier cadeau pour ñu takk la. bu doo doo doo assumer assumer parce que lii nga def nii yëfu ñàkk fay dëggantaan la ma jóge fële ànd ak géwélam ñoo jox la teraanga nga ne da ngay téye teraanga mel da ngeen sékk yéen ñaar dara lu extraordinaire man ak umu on a été mariés waaw sama jabar la woon baax na ba passé nga ko conjugué maa njëkk a takk ci góor jàmm ak salaam laa sékk ak moom bu ñëwee ju déplacé woo ñëw sama kër dajew maamoon moom ci mbedd mi fekk ma ko fenn fii la ma fekk si yaa ma woo ma ñëw mu toog nga dé li mu wax yëpp dégg nga ko waaw dégg naa ko li ma ko tontu dégg nga ko rafetal la jot naa jël naa lim ma jox mi ngi ma def ci armoire bi mais xaalis boobu koo koy man nga koy jox. la ko. man lu ma koy def. kon nañu ko bàyyi ko. nañu bi day génn. leen dem fan xaalis bi day génn kër dem fan xaw ma fu muy dem bee boo nga jox ko waa cag cag ko ummu mais ka yow doo dem yow doo fi dem doo woo. ummu bi moom du ma ko delloo. doo ko delloo. nii nii dara ma jël xaalis bi ko delloo um pour quelle raison. kon bu bëggoo jàmm de. ah yow bëggoo jàmm de daa mel ni. crit eh, da ngay menace wala nga def. non menace ma dama ne la yow kon bëggoo jàmm nga ne xaalis bi dellu ci ummu. du fa dellu amul problème. tu commences nag enfin à me le mettre yow bu la bëggee bu la neexalee rek de gauche nga ne tu de droite ah la fin tu ressembles même les moutons de Casamance dont dont parle mon c'est quoi le problème waaw kii comme xalu bali bali quoi. ma waxatee yow ma jóg di yow dégg naa ni ñëw na fi indi la ay teraanga am libre na ci sax ndax teraanga moom kenn du ko rejeté waaye nag dafa am loo xam ne jëkkul rafetul wala mu joxoo xaalis ça ne veut pas dire que ne dangaa war a jël fàkki ne teg ko di ko xasakati ko gaar waale ba nag dangay tas sëyam yow dangaa mën a tas sëy fàkki ne yow dangaa mën a wax ba indiwaat fi um dafa am loo xam ne bukki bu yebe ponkal ci doxin mi la ndax buwa ngi fan yi gis naa ne muy def bay defanteeg yow te foofu yëpp waru fa mën a egg ak yow ndax kilifaam nga waaye loolu lépp ci sa la nit boo ko yilifee da nga koy wan ne dama laa yilif te kër gi yaa fi kilifa kenn ku ne war nga ko wan ne dama laa yilif waaye waroo fu la dërëm fekk rek ne la coppet yóbbu ba sa diggante gërëm ba kañ yow xanaa tey nga mën a gërëm umu yow lu ne wax nga ko fi umu keroog bi mu jëlee bu sotti ko ndox mu tàng mi fii nga taxaw ne mu yóbbu ko ci yoon dañ koy tëj bu ci teg tànkam ne duma ko tëj kon tey boo ëlbatikoo ndax dërëm noonu nga mel sax bu la waaye nag sëy Fatou Kiné bi laa bëgg nga kenn ci bàyyi jàmbur tout tranquille mu sëy sëy jëkkëram bëgg na ko mënoo ci dara booy boo nga jëm ci noppalu. yow loolu mooy sa problème. waaw man xamul sama mooy yow kañ ngay bàyyi réew danga ngaa réew sën. man meloon ni kuy wax ak bu naan ma génn lëg mënoo rek lii yow yow da ngaa réew. te man duma ma sa morom xam nga li wax waa non da nga da ngaa réew dooy wax ak man nii naan ma war que parce que sa doom sol nga ko ba mu fees tax muy jàkkaarloo man di ma wax ay viagra ak lu ne mu dugg ci kon yaa ko sëf sol ko ba mu ba mu fees comprendre nga li ma la wax man du ma moromam du ma sa morom comme euh, bu yow euh, euh, umu loolu mu def fat ki ko liggéey te xam nañu man bu ma soxoon bopp oyofoon ba tey génn naa kër gi yaayam jàngal buy meles meles di dugg ci kër gi nii sëriñ rek lay wër. bu jour bu ñëwee moom lay njëkk a beral bala moo nuyu kenn fàttali ne lay beral saa yi ñëw na butéel man xam naa lépp. xam naa lépp lay liggéey ci kër yaa ngi ne dama laa déglu danga may déglu wala nga bakko dama laa déglu lay wax ne ngay noog naaru ñi xaw ma da ngaa mël foofu ma loo def dégg nga la man du ma seen morom waaw man bu ma jox xaalis dama koy dama dama koy lekk ba mu rees fii lañ ma jox euh, sukaru koor mu effacé sama tur di ma jiñ xëdd ay ay ay sàcc xëdd mag mu day ni man kii réewul man nag ñëpp lay liggéey ba mu des man yaa ngi dégg xam nga sa doom moom liggéey na umu umu loolu mais ku bëgg fiir fiir ko jëkkëram da koo takkal wuju mu fiir laa lay wax ni. ba tey mu sottee ndox mu tànn yow xanaa yow xanaa Fatou Kiné yow ŋaangal Fatou Kiné wadd ba. waaye yow gis nga ku gën a bon Fatou ma wadd sa saytaane rambaaj bi tas kër gi liggéey la ba nga yàqu muy Ndeye mi kooku nga war a wax. yow yaa war a nekk yaay Fatou Kiné da ngaa bon. waaw gis nga ku ma gën a bon yaa war a nekk yaay Fatou Kiné ki bon mooy Ndeye Ndiaye waaye. ki sa ay a ay vipère rek ngeen yéen. sa ko ni ko ni ko moo frère laa di ay vipère ngeen caam nag bari na xasan mais moom trouvé na vrai mot bi vous êtes des vrais vipères yéen. sa vipère ba dee ma nga nga jël. daggal ko billet ne ko na dem Maroc muy Ndeye Ndiaye. kan laa dagal financé ko Ndeye Ndiaye. kan man maa dagal tam bi yow. man ba nga ko defee laa ko yëg keroog ba muy embarqué. yëg naa ne day embarqué nee naa la man. ah xoolal renseignement généraux laa am. lépp laa yëg dem kër yaayam nopp lu ji. mu toll nga naan la <laughs> ah. kii dem kër yaayam nopp yaa ko jox ay millions ne ko demal Maroc commerce keroog ba muy teg tànkam ca passerelle bi di embarqué yëg naa ko. kan Ndeye Ndiaye def ko nëbb te danaa woo waa gi ñoom asoon ñëpp wax leen ko. defal naa ma wax dama ne defal naa la. Ndeye Ndiaye pré la def. ah ndoy pré la def. waaw pré la def man ma dem soutenir ko pour ñu mën koo jox. yow da ngaa am bulletin de salaire bay garanti kenn yow foo mos a liggéey. Ah? yow da ngaa mos a am bulletin de salaire bay garanti kenn. caution caution laa ko joxe caution xalal caution laa ko joxe yow dama ne ki ngay waxal daa jàng la gën a jàng ku musul liggéey mu soo am bulletin de salaire kenn du la garanti dinaa dem ci asto xaj baaba waa kër dajale leen ne leen yaa yëkkati ay millions jox Ndeye Ndiaye financé ko mu dem Maroc nga leen koy nëbb léppay feeñ tey. yow dugg nga loolu ngay wax baaxul de li baaxul de. mais gis nga mais attends kii damay wax ak moom parce que lii bu ko bu ko waa kër yéegee man maa ko jox loolu dama xam moom waa kër gi duñ koy. lan ngay def fii. ah xanaa indil la defaral la samay ginaar defaral la ndogu bu baax indil la ko nga naan lu may def fi yow soo may defaral samay ginaar doomu bàyyi ba ma génn ci biti nga woo ma ndànk ne ma caam am lii laay sama fii ay dëmm fi nekk. pour lan. kër gi yaa de yow fis nga fi. bis bu ñu eh. ko yëgee ma dee lan la. du ma ko def du ko def su ma su ma indi sama teraanga dam damay fekk ñëpp ci kër gi fii waaw ñëpp teg ci bët ndax teraanga àdduna bët. yow yow aussi. du ma ko def laa la wax. woo ma ci téléphone ni ma caam kaay ma ñëw jël li duggoo ci biir kër gi yow lan la. waaw ah quest man njaago laa. gën ma ne xanaa man njaago laa. la man njaago laa. waaw du ma ko def tey duma ko def suba fii laa koy indi woo waa kër gi waa àdduna ñëpp gis ko pour lan non booy xoolal eh, booy xoolal. Eh, bu ma may riir ay ginaar laa lay faral de ginz. déglu ma déglu ma la xanaa ah. bëgg naa ganaar trop mais dafa am yoo xam ne dafa jaaduwul. ah fii de laa ko lan la fi nga indi lan. yow xanaa ko fi. jugal yóbbu li dem duma dem fii laay toog. doo jóg la déggoo li ma la wax eh, fi ay dama ne la du dem du ma indi sama terrain. doo indi li yow dem du ma ko def. Oh, oh ça c'est bon. alhamdulilah. ah merci beaucoup. naka koor gi. yow de wóor nga nag. ça va. waaw mën naa la. ah ça va. yaa ngi ci jàmm. non non. ni woon naa la tey dama surprise laa la koy defal. dama ñëw indi la ndogu. mais nag xam naa du ma fi yàgg na parce que dama am benn tour de famille. suñu kër benn tante. ok balaa war a dem nii mais dama ne xam teel la defal ndogu bi indi la ko. ok non yaay sama chérie. waxal ak man. lii lan la. yow lan lañ waxante woon. kan laay seet si ah xanaa yow laay seet soxna si da xam kii. yow qu'est-ce qui se passe yow lan la lan la qu'est-ce la. non kii dafay làkk wala dafay da ngaa xam moom lan la noonu. ah damay laajte di yow man damaa indi woon sama ndogu di ndax kii damay waaj a takk bu ñu. korité ba pare yow noppi ah. ku ñuy takk ah man mii. xale bi xew. <laughs> Ah, waaw pare fépp. yow xoolal on continue notre discussion. non non. si on continue notre discussion lan la loolu am na raison lu tax lan la fi wax non déglu ma lan la yow soxna si yow laay déglu waxal dama ni kii daf may takk kan moo lay takk yow yow man maa lay takk man force yow kan moo lay yow yow xool dama bëgg nga régler ah amoo loo wax waa kër gi génn leen dama indi sama ndogum mu andi fi beneen benam jugo ba yaa rien dara xew yaa rien non non non dara xew dara xew gis nga yow dara xew na lan mooy lan toogal ñu waxtaane ko. lan ma xew ma xew rek. toogal yow lan la yow eh, dara eh, xew dara xew dara xew na ba demal nga toog dara xew na. lan moo xew dara xew na lan moo xew ah. xam nga ñëwoon naa yow wuy ma fi explication amu fi. xam nga la yow lan mooy sa tànk si kër gi laa wax yaa ngi sa ëmb fóot bi fi indi. Eh, bàyyi ma wax bàyyi ma ma expliqué waxal keroog ñëwoon naa fi fekk la fi yaa sa doom bi mhm. ah bi ñu toogee fi lan lañ waxante woon man ni la dama damay ñëw ci kër gi di fi tëdd ay ay 3 heures du matin may génn di dem moom ñoom moom kii lay léegi nag tey ma ñëw indi samay ginaar yu neex yu baax indil ko ndogu ah. déggaat mu ne dafay indiwaat kii xaw ma gelam la xaw ma lanam la ba muy mel ni jaan duy simmeeku waxul woon loolu nga gëj a gis kii ba kan kii chaque jour suñu kër lay ñëw suñu waa kër ñëpp a ko xam sama famille ñëpp a ko xam chaque jour mu ndog si tey nag maa ko kon kii ñëw seen kër chaque jour mu a ko xam ba yaar yee demoon tëddi yaar dara xewu fi. Eh, lan mooy problème bi. ah nga ne dara xew. dara xewu ci kër gi. léegi boobu dama fi nekk. lan la lan lu nekk si boobu. laay ma defar samay ginaar yi wang. andil ko ko. wax ko ba lan moo ko indil. lan da nga am diwu ginaar. xool ma yow amoo diwu ginaar moom amoo eh, diwu eh, ginaar. dama ni xoolal. ah ilaha illa yow kan nga indi ginaar yow. non taxawal pour man pour man yaa ñëw indi jël si fóot pour man fóot la jël si. fóot yow kon wéroo. yow aussi yow aussi ki ngay seeti càmm pour indi li. waa. ba man maay ko mbistaa mi ngay dégg. waaye future madame Thiam. lan mënul ne. loolu mënul ne. dëgg la parce que musuñu fee fekkante ma ak yow. Hmm. looloo tax na doo comprendre action bi. Hmm. ak problème bi fan la démarré. bi man la waroon a taxi. mère bi oh, mère. yow ku la bàyyi nga ah, takk mère bi. mais attends moo kii aussi sori nañu am na ay affaires yu fi am na yu fi xew bu yow bien sûr musuma laaj mais moo kii aussi am lu fi xew. donc kii moo war a leer leeral mbir mi xam kan la dajale ay. jigéen fii benn problème dama ne ba yow sa yoon nekku ci c'est pas ton e, problème voilà e, e. dama nga régler sa problème régler sa problème jabar yéen te bàyyi sama problème waaw je ne vous écoute pas déglu ma leen du ma leen déglu la ma problème du ma leen déglu ah du ma leen déglu du ma leen déglu kenn ci yéen waaw bu raxoon de biti dama war a jox cër ni ma sutee nii rek maa war a jox cër du ma sama morom mère nga yaa yee def pour ma jox la cër nag mag mère la merci beaucoup yow laay waxa doo ñàkk fayda par ñàkk ale ma fayda xam nga kii ne du ma ànd ak ak moom di sëy ak moom si biir kër gi ngir kan ngir yow man du ma jigéen joo xamante ne dafay dugg si góor goo xam ne polygame lay def yaa ngi may dégg. yow lan la may ma yow xam nga attaqué la ah, may ma rek yow lay attaqué mu attaqué woo ma ma carrément naka ma carrément yow doo góoru ñaari jabar benn jabar rek ndax yow entretien sa ñaari jabar n'est-ce pas looloo tax na ma gën a am courage dugg ci yow te kii ma duma fii maa fii sëy bay bërëngu lii laa wax tuñam yi mu niroo nan ko ci sàngara bu xolal man loo wax baax na xamal la moom wala man eh tànnal léegi lay doon ah, xam nga ni jabar xale. yow li nga bëgg gelo gami lay def. ba sa yoon def gelo gami dajale gën ñu problème sama kër mais polygami yéen a leen tooñ. voilà lii nag dinañ ko réglé kër gi doo fi dugg. xam nga dajale jigéen ñi comme ça. yow yaa ngi lay yow amoo pour régler dara yow ba. amoo pour régler dara. donc gën la suite bon c'est bon yow bi sa baax na reer yi da ngeen ko andi woon. waaw léegi yéen reer la ñuy yéen reer yéen reer léegi jëlal ma may la ko ginaar yu saf sàpp la. gis nga man soo gisee sama bool bi sax xam ne classe la am man du ma moroom benn xale. man maga mooy maga mag moo may moo may topp mais gone may daan gis nga reer bii di nga lekk beneen reer bu dul bii bii nii bis ni ki tey te man nag chaque jour nag may am mhm. déception si yow bis ni ki tey nag boo gisee ku rëy yow léegi man ak yow jeex na ku ma yow mënoo rek la yow ah ah, ah? ah? maa na ko jox na ref ak jàmm dañ may takk waaye takkaatew ma mi ma jaar sama bool merci beaucoup yow xoolal waaw donc uy ma bu leen def dara ci mbedd mi dégg ngeen bu leen bu leen kii yow xaar ma xaar ma lu leen neex si mbedd bi xaar ma ma gunge waaw def leen lu leen neex si mbedd bi lan mooy problème bi très bien yow ma xam naa ne nit yow jigéen nga am nga classe sa bool am na classe waaw am na olive bu doy ah yow mi nga amul classe yow waaw waaw dama yow sa yoo nekku ci samay problème ne t'en écoute pas. yow daal bu may reer dinaa la invité amul problème. kan nga invité yow nga ne. Eh, ko kii nga lekk ko du rees. kan yow ak ay rees ak jàmm. da ko moom. ah yëkkati ma teg sama do ka ma yëkkati may la. kan yow.